secte bobu nga tudd léegi te mu woote ndaje bobu touram mu ngi tudd l'association pour le du Saint Esprit pour la réunification de l'Église. c'est-à-dire que kiko sos muy le révérend Sun Myung Moon moom ñu koy woyé phase Moon gañ na sax ci 2012 bi ñu weesu le décédé à 92 ans donc mom dafa ne moom mooy kii wuutu yonent Yàlla insa c'est-à-dire que mom euh, ba muy am 16 ans ci benn montagne fa ci Corée nee na le Saint Esprit mo ñew wax ak mom jox ko mission ne ko yow yaa war a defar li nga xam ne yonent yàlla Insa sax jotu koo mën a defar ndax Insa devait faire un paradis sur terre dafa doon def suuf mu nekk paradis moo tax mu doon wax sax euh, ku la mbaj par la si joue droite jox ko la gauche pardonne et tu seras pardonné donne et tu recevras li moo nekkoon enseignement yonent yàlla Insa ci biir évangile donc moom mu ne nag yonent yàlla Insa dafa échoué dans le Insa euh, ñëw na andi premier effectivement christianisme la première religion au monde donc euh, waaye taxul ñi nekk ci biir sax guerre mondiale taal deux guerres mondiales biir biir Europe c'est une nation chrétienne ñoom France ak ñoom Angleterre ak dëkk yooyu yëpp donc mu gis ko kooku Jésus dafa échec té Yalla moko ñëk échec ndax Yalla dafa dafa créer Adam, ñu wax la pureté originelle Adama yàq pureté bobu Yalla jotul mën def un paradis euh, terrestre. mom moun moy wax. mom moun té téereem bu siiw bu mu le testament accompli parce que dafa né reconnaître na ancien testament reconnaître tamit nouveau testament ak bossam mom muy testament accompli donc moun mom j'angalem. mooy ko kon lolu le père échoué muy Yalla le fils échoué ko muy Insa mom mo war réussir ko. pour defar aduna mu nek un Nédantérès par la paix donc moun bobu nak ni dafa am mission dagale njabootu yent yàlla Insa mo wote won fi ci jam ñaajo man gisuma ko njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu fon outil c'était pas sa place wax deug yàlla ben sëñ war fo nek yamul fofu moun bind ne mom yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam imposteur la yàlla yoni wuko alquran crédible du deug koku dafa taxaw plagier ci ancien testament bi ak mu wax le Pentateuque

mu ne ville sainte yi nga xam ne ville yooyu kese mooy rëcc ci mbugalu yàlla parce que moom dafa prévoir ni dina am troisième guerre mondiale bu war a ñëw raxas àdduna te moom moom mooy le premier couple parfait maanaam le couple pur moom ak Mazamoun jabaram ak ñi muy maye ci sëy ñoon ñooy les couples purs nee ñetti dëkk yi kese ñooy mucc muy Israël di Corée bi mu dëkk moom ak États-Unis xam nga kon révérend Moon moom wax dëgg yàlla li mu woote yoonu l'islam nekku ci ak ki nekk si beneen mbir sax feeñ na muy. da nga hmm. wax ni hmm. àdduna dafa war a am benn troisième guerre mondiale. waaw te ñoom ñu ngi woote paix kon donc am na leneen lu ne. dafa safaano ma dolli la si leneen. révérend Mun bi décédé moo décédé na 2012 bi hmm. daf fi bàyyi alal bu takku takku takku ci ginnaam ndax alal bu bëri la am ndax ji nga secte boobu lu tax lii sëñ Maxtaar di wax dafa dangereux trop ji nga fee ci France ku ñuy wax docteur Champollion di député moo taxawal foofu benn collectif pour jéem a xeex secte Mun. parce que dañoo jàppoon doomam mëntul teg bët doomam ay at muy seet doomam mun ko gis ñoom ku ñu xas ba recruter rek da yóbbu seen temple yi doo doo demati sa waa kër dañuy yeew fajar dugg seen ay oto di wër pour dem uti ay fonds collecter ay fonds pour dimbali pour defar la paix dem di jéem a convaincre comme nu témoin doon def fii Sénégal yor seen ay brochure di jéem a ut ñu convaincre pour dugal leen loolu la ñuy xëy di ko nekkee suba bu guddi duñ demal seen ay kër dañuy bàyyi seen jàng donc Champollion nag lii suite à un xam ne assemblée nationale française ko def. jox wax ne ce secte là est dangereuse boole ko ci cinq sectes yu gën a bon ci àdduna ñoom ñu taxaw nag commencé leen andil problème ak ay jafe-jafe fële ci Allemagne fële ci France ba Union européenne des directive pour xool secte yi en Europe donc ñoom nag ku nga leen fitnaal fee ci européens yi ñu daw ne nañ dem xooli Afrique la Afrique foofu dañoo tumuranke te dañoo ñàkk xaalis ku fa dem yóbbu fa tuuti xaalis may leen chaloupe jox leen tuuti xaalis ne naan defal tali wala topp la